waaw kees fa la gënoon a seere léegi fa la gën a yombe cent mille boo ñëwee kees dañ lay may jabar nga dem Fatick cinquante mille ñu may la jabar nga dem Diourbel soixante mille ñu may la jabar nga dem Saint-Louis soixante quinze mille ni may la jabar nga dem Kaolack quinze mille ñu may la jabar nga dem Tamba quarante mille ñu may la jabar Tamba nee na transport bi ci lay bokk nga dem Matam trente cinq mille ñu may la jabar Louga cent cinquante mille ñu may la jabar waa Louga loolu seer na de nga dem Kaolack lo am am jabar ah est ce que duñ jëm kaw la sama gaay nga dem bour 20000 ñu may la jabar xamna ci dara bambay 5000 nga am jabar yi bambay la jëm dakar jëm ñaajo vingt cinq nga am jabar dakar ville 300000 nga am jabar e lolu ser na de pourquoi jabar dakar ser, mo dañ ca fay ser rek day ser bu pare duñ mëna togu ci cere duñ mëna moy sax mënuñu ko bambay gii ni ñew 5000 da ngay am jabar ju mëna moy